nag la nga gis ni tey moom mooy ajuma ji nga xam ni incha allahu taala moo moo mën ci koor gi eh, gis ni nag ren jii moom ak eh, yokkute am na ci bu baax a baax a baax yokkute ci wàllu gépp nag ba ñu xam ni yokkute am na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 jëm kanam euh, ñu jàpp ne nag luy jëm kanam moom ñu koy doxal ñoo duñ dalu gannaaw yaakaar naa waaw kon ñu rafet njort yi yéen it kanam rek ngeen jëm waaw kanam rek ngeen jëm mën nañoo wax ni nag ñu ñi ñëpp ay doomi taalibe lañ mm-hmm. bokk ci Cheikh Ibra doomi ngërëm nga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 Mm, ngërëm loole dañ koy donante xaw ma ngërëm luñ dul donante waaye ngërëmu Sëriñ Tuubaa moom dañ koy donante ndax lii nu am ñii kat euh, yi ngeen di yar di ko indi te taaraagi ji ngeen ñuy jox ak màggal gi ak coxeel gi ak fonkeel gi ak mbëggeel gi ñun suñ jëm bopp defuñu lu ko jàpp defuñu lu tax ñu yàllaaw ko waaye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 loolu ku Sëriñ Tuubaa moo kon ku Sëriñ Tuubaa dig lu kenn mës a dig kenn nga war ko gëm ndax danoo wan ci saahir lu kenn mës a wan kenn kon dañ ci rafet njort bu baax a baax waaw tey ñaan barke ci lépp rek seen lépp barkeel waaw ko suñ bi waxee rek ni albarakatu isa daxalat fi xalilin kataratu wa aktaratu barke bu duggee ci lu tuuti da koy ful dolli ko moom bari lool ba doy mu doy doon day doy kon nag yàlla na yàlla defal barke dafa leen ngeen ndaje ak ngërëm seen tuwaay yéen ñëpp loolu bu baax a baax dama xol sadd na eh, lii nag lii ngeen jaarale ci man ndax lii moom man moom moo waaye nag moom ngeen ko jaarale fu ne ay ngeen jaarale ko sama jëmm man loolu ak cant la ci man baax a baax waaw man amu seen fay yàlla yàlla ñoom doon seen tool rek leen mën a fay di sant ñëpp nag eh, rafet njort bu baax a rek dalal dalal suñu xel ndax ñun ay Baay Faal lañ ay Baay Faal lañ julluwuñu wóoruñu eh, Cheikh Ibrahima nag mi nga xam ni moo tax ñu koy def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 te ñu xam ne nag ñun bëgguñu loolee su melo ku nu ku nu ci ku nu ko soxlawuñu ci aw lay wutuñu ku nu ko layal ndax liñ ci am ci lu ko waroon a mën a layal bu fekkoon dañ ko soxla bari na mën naa cee joxe exemple sëñ Fallou Mbacké dana yàlla yokk ay leeram booba man ay tuut tànk laa sama yu mag yi fi booba sëñ ñi nga xam ne ñoo daan dem bu ñuy yóbbu ndogu kër sëñ Fallou ñu daan dem ndax am ñu leen gënoon mag waaye daaw ñu dem ñoom ñu Talla Yaasin la woon dañ Abdou Waxee dañ Cheikh Assou Ndiaye dañ Cheikh Modou Mbenda euh, sëñ Cheikh Fall Mbawor sëñ Assane sëñ Saliou mi nga xam ne sëñ Fallou doomi sëñ Fallou la mu joxoon ko sëñ Aliou mu yaroo fii ci kër gi sëñ Bass Khady Mbodj ak man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 loolu ñu xamee ko noonu baax a baax leen sant nag yéen itam yéen ñi nga xam ne yéen ay média yi sant bu baax soxna jaara ñëpp dañ fàllu ndoy mi bu sew dafal point com ak euh, asalaami bu sëñ fàllu gala si la ak euh, Touba Prod bu sëñ Cheikh Mbacké Samb ku lim juum ak ñu fi ñëw ñëpp waa Lampal waa Ceeñeer ñi fi ñëw ñëpp leen sant bu baax baax ndax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 lu ñu fi xam lu ne te fekke ko la ko daal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi la ko fi indi média la xëy na nag média yu mel nii xewul booba waaye ak jox wala bind wala lu mën doon am na support médiatique boo xam ni xam-xam am te fekke ko loola moo ci jotale léegi lii nag dafa gën a moderne ndax amut amut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 lépp lu ngeen yéene woon te mënu leen ko ngeen man ko ndax ëllëg si biir kenn ku ci ne yéene lu ëpp lii moom moom dong ngeen man ko parce que Serigne Touba barke Soxna Fall sant naa leen ñeen ñëpp waaw ma guddal naa leen waaw ngeen Jaxate nee na muñ ak sant gën lépp loo man di def na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xéewal di muñ jëpp lor ngirum gaay yàllaa ngi nii soobu ko amaa naa nga gis gaa yi ñuy rekk bég di sooxaale ay lor dul soppi takkusaan a ngi gu jara waxtaane gu jara bàyyi xel li nu yàlla defal bokk na ci liggéey bii ñuy liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi moom ci boppam mu wax ne sàkkartu isqa sanii bi xidmatin maa yi sanii man de sant naa yàlla mi nga xam ne moom ma booleeg rasulilaay ma di ko liggéeyal ñu boole noog sëriñ bi ñu di ko liggéey sëñ bi da wax lu daw yaram fii ne ñii dañoo fab yëf yi di ko jaarale ci man te sëriñ Touba am na kilifa gu ñëw ci wetam ci ñim def kilifa ñi seex yi ku toll fii nga nekk mu nekk fa ñëw ne sëriñ bi ñii di yenu seeni bagage di ma ko jox bu ma toogee ci kaw ñu toog ci suuf lu ñu am jox ma lu naqari ñu jël lu neex ñu bàyyee ma dama bokk ak yow yaakaar leen sëriñ bi def na ko laaj nga lu mat a laaj waaye ma dina xamal ne ñaari mbuus yoo xam ne genn defu ca dara mbuus goo ca lem def ca moroom ma rek mu mën caa nekk boo liggéey maay duy mbuus yi te yëpp dinañ fees sëriñ Mbay Jaxate dellu wax ne lu dalal sa xel rek laa lay wax sëñ bi xelal sa xol sëñ Mbay Jaxate dafa wax nañ bokk farlu te seenu jëm ko ak lu rafet ab lar bu manqué te sangam mat ñu mottali ko bon giinu bon bu mu tax nuy naagu addun nuy naagu yërmande nag ab lar bu sangam kowee day mujj yëkkati ko te war ngaa jàpp ne soo jàppoon ne koyewoo te kowee nga tamit sëriñ Aliou Fall kowe na sëñ Aliou Fall bu koy wutit maam Cheikh Fall kowe na bu maam Cheikh Fall ku sëñ Bamba ñëpp kowe na kon lépp day kowe ñii ci ànd ak yow tam dañuy kowe seen xel na dal seen xol sedd li ci li ma ciy teg moo di maa ngi dénk ñëpp ñu fi nekk dénk ne boo xam ne ci sëñ Tuubaa la jóge jaar ci sëñ Mbay Jaxate mu dénk ko taalibe yëpp ca Tindodi tàkkusaan la gu mel nii taalibe yi nekk fa di buuxante di raj-raj loo mu yendu fa ba ngoon ba muy génn mu ne sëñ Bamba ma waxtaan ak dongo yi dal di wax ne ma jóg defal fi gaa yi Tindodi yi bayit yu rafet ndax seeni xol sedd seeni itte yëkkatiku sëriñ Bay Jaxat nee na ittee di koomu murit mboole murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàppandi ko wut leen i itte yu rëy sàkku yu ngërëm fexe ndam te sopp seenub sëriñ topp yi waxam te jako dab leen a dab ngërëmam tey sàkku faw yu mbégam te lépp lëf lu mu bañ daw leen a daw sori ko mat nab sëriñ yéen itam mat leen i taalibe nag te yeesalu tuuba ku njébbal ak bàyyi ko sëriñ Mbay Jaxate nee na jëm leen a jëm ca kanam mboolem lu dee fi mébét ci jëm kanam la ko dee faa làq sikkuma ko sëriñ Mbay Jaxate nee na kem lu murit jëm kanam gën faa jege sëriñam gën faa def xaritam yow sab sëriñ jege ko waaye sañ bay Jaxate ne na jegeb sëriñ bokkul ak fu xoole gis la fa kat ngay xool ak ay déglu waxtaanam te santu la ko jegeb sëriñ moo di yow mi toppatoo ndigalam te lépp loo xam ne bëggul loola it nga ba ko sëriñ ka aw ndigalam moo nekk ci wanagam ne ci xolam ab sëriñ kay moy ndigal safu ko yow doonte yaa nga ca manding tey jëfee ndigalam yëgël na yéen a ngi riisoo yàlla seede na ko te doonte yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalam seenu digganteefu sut ndar lii ka bon moyu ko tey gars yi tindoo di seenu dénk mat na mi ngi nun ñëpp yàlla na suñuy biir jub te yëkkatiku sëriñ Mbay Jaxate nag dafa wax ne ku nekk foo xam ne mboolem yiwu nekk fa am te jëm fa deeful foraw yiw farlu war na la kay addina kër la gu ñuy sàkkoo lu nekk ka am àllaaxira di këru pay jëf jiw du fa doy foo xam ne jëf jiw du fa doy nag nga gis foo xam ne loo man xaj na ca te dara du réer sëñ Mbay Jaxate nee na loo jëf ci aw yiw lu sew-sew ak payam dana ñëw te pay ga waxtu wu dikkee sedd guyi sa xol moo tax mu ne murit bi yow jeexalal sa dund far ci ndigal sa noogu ñëw mbaa mu wéy nay ñëw di wéy ci ndigal jàppal ci yàlla te def toppam ga ab xarit ak baay ak ndey ak soxna ak doom it te def ko alal te def ko ab goro def ko fos te def ko sa njël te def ko mag def ko rakk ak mbokk def ko sa njël te def ko te lu xol ak àndandoo ki sér ak ndox ak ñam lal bu nooy ngën ji daal te sëriñ bay jaxate nee na loo mën di ànd lu dul ak topp yi dana dem nga dem te dootul a gis dootoo ko seeru asal jullil ca yónneen ba mbaa ngay sikkaroo ko xalam aw yiw fi sa xolte bul neenal sa waxtu jëfal loo man defal loo mënul jéemal te yéene ko yow kay jéemu yiw ak a yéenew yiw mbiram bonagul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 ndare bunt bi yàlla rek bu muy génnee yëfam ak a tàbbal xam ko fas ko bu wér sëriñ bay jaxat nee na mbirum sëriñ mi ngi mel nem céebo loo mën a tex cim céebo seeru ko bul tex luy taxub xol a ñor sëriñ bay jaxate nee na lo sëriñ du bon mu ni tey bon ndaxte loo mën a loo mën a fas ci sëb sëriñ bu amul woon nit ñu wan la ko far tuubal te fas lu rafet tuubal te wax lu rafet tuubal te def lu rafet kon say mébét na jasar waaye sëñ bay jaxat nee na ku saytu bukki di woo ay bëy te bëgg ñu ñëw na wàcc bukki ba kon bëy yëpp dikk ko wër ku yor lu bon su bëggee aw yiw na wàcc la bon ku bëgg a boole bukkee kii bëy du man la mu nar loo ñot di yow te ñëwul tuubal ayib la ci yow te loo jañit te demul sa ñàkk tuuba ko jur sëriñ mbay jaxate nee na xamal ne kenn yoratul say caabi kat ndara yow jox nañ la say caabi tuub ak sant fa wala war suñ delluwaatee ci biir way wi li sëriñ du bon muri tey boñ. nee na mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di tàmbalee nuyoo bi ci soxna sii toog di njabootug sëriñ Fallou Fall di ak njabootam. te sant na mi ngi sant sëriñ Fallou Fall bu baax. nee na cant gi nag mi ngi tàmbalee ci soxna sii. ndax maa ko fa teg. nee ndax moo ko fa teg. te li koy sant ma kon nee na li mu bëgg lépp. ak li mu leen bëggal. ak li nee na wóorante wul ne Sëriñ dana ko def. ni ngeen ko bëggee. nam ko bëggee. noonu mooy am. nee na xolam sedd na bu baax. waaw nee na lii moom na ko waaye bett ko woon ndax lii daa ëpp. nee na sëriñ Tuubaa loo ci def rek lu mu ëpp ëpp jar na ko ëpp. rawatina nag sëriñ Soy bu ba tax na digganteem ak sëriñ bi. am na ab tàmbaliwaay. waaye amut ab yemukaay. kon nee na ngeen góorgóorlu bu baax. nee ngeen xamal sëriñ Fallou nekk na gën a góorgóorlu bu baax. te rafet njortu te xam na lépp lu Seex Ibra yoroon Sëriñ Tuubaa jox ko ko nattabli woon na Sëriñ Fàllu dana ci jot wàllam dana yor lépp kon dégg ngeen ko Sëriñ Fàllu dana yor lépp loolu yi nag xel mu dal war na cee dal njortit war na cee rafet waaye ku xam cosaan la loolu du la jaaxal ndax Seex Ibra maamam keroog bi mu ñëwee ci maami sëriñ bii di ko jox boppam dafa ñëw ne ko jox naa la sama bopp ba mu des sama ngor sëriñ bi toog ab diir woowaat ko ne ko Seex Ibra loo waxan mu ne ko dama leen jox naa la sama bopp ba mu des sama ngor mu nekk lu tax boo ci sa ngor mu ne ko ngor gi laa fas yéene ànd ak yow liggéey kon képp ku bokk ci Seex rek ngor ga nga am foofee nga ko jëlee ndax ngor lañuy ñuy àndeek nit ngor lañuy ñuy jàppi nit ngor la ñuy wétlu ko ci doomu aadama kon bu ngeen àndeek sëriñ bi ci ngor ba agsi fii kon war na leen a wóor ne lii sëriñ bi wax natt bi wu na loola day am